alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah ci euh, xaaru kooru ki nga xamante ni mooy euh, suñu yaay euh, di Seyda Mariama Niass ñu ngi taxaw ak kenn koo xamante ni doom la ci xadra bi muy oustaz Baye Thiam Zeyna oustaz tey ñu ngi tàggatoo ku jëmmi alxuraan mu Seyda Mariama Niass yan kàddu seede ngay yëkkati jëmale ci soxna si. waaw jërëjëf dañuy tàmbali rek di wax bisimilah rahmaani rahim inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu ngi tàggoog alxuraanul karim alxuraanul karim kenn mënta tàggoog moom waaye ñu ngi tàggoog jëmm joo xam ne dundam yëpp alxuraan la ko joxoon di suñu yaay Cheikh Mariam Cheikh Ibrahim Niass nga xam ne eh, doomi Mawlana Cheikh Ibrahim Niass la te Mawlana Cheikh Ibrahim Niass njabootam yëpp mu ngi leen yar ci bëgg alxuraan eh, bi muy am juróomi at ci la dal alxuraanul karim yaayam. suñu yaay suñu maam yaay Aïssatou Sarr moo ko njëkk a dalal alquranu karim ndax moom euh, sëriñ daara la woon daan jàngale alquranu karim euh, gannaaw gi moo daanaa Cheikh Ibrahim Niass euh, dalal ko abajadiyat alquranu karim dugal ko ci daara rabbaani mu jàng fa booti alquranu karim teel ko wët Euh, bi mu kubatoo ba ni mu ni muy wujjee boromam mosu ko fàtte ndax waxtu nekk mu koy jàng di ko waqaf ci ndigali Mawlana Cheikh Ibrahim Niass ndax gis naa lettre boo xam ne bàyyi moo ko bind di ko ndox ndigal ci muy jàng u karim kon euh, dippe bi ko bàyyi tuddee Mariam loolu rek ishaara la ndax boo xoolee euh, Mariam Seyda Mariam. moom rek la yàlla yaxal turam ci jigéen ci alquraanu karim turam wàcc na ci alquraanu karim fanweeri yoon ak ñeent ci fukki saar a ñaar amul benn jigéen boo xam ne yàlla tudd na la ci alquraanu karim ñu ci nekk rek daf lay junj ba mu des saydatuna Mariam moom rek la ci jaar ci turam loolu rek junj la ne kii nii ci alquraanu karim la euh, mu liggéey liggéey bu yaatu ci alquraanu karim ba nga ne. Eh, jox na alquranul karim dundam bi yëpp waaye alquranul karim tamit moom it jox na ko lu nekk ndax fu nekk lañ ko xam ci àddina bi ngir liggéeyam ci alquranul karim eh, tabax ay daara ci jamono boo xam ne tabax daara lu jafe la woon bi mu demee Dakar ci suñu maam Cheikh El Hadj Omar Kane ne rek man eh, sëy mooma indi fi waaye def ci boole li nga xam ne mooy alquranul karim samp fa ay daara di jàngal doomu jullit di alquranul karim damay wax ne Seyda karaama la ci karaama Baye ndax Baye moo ñaanoon fal tajaalan xifza kitaabika al karim karaamati ila liqaaika al azim moom jëmbal na ñaani Baye googu nga xam ne eh, fu nekk rek ay jeexitam ma nga fa te ci alquranul karim lay eh, tàmbalee bépp liggéeyam boo xam ne rek mi koy liggéey ci lislaam Euh, benn bés benn journaliste bu mag bu ñu wax Ahmed Farag nekkoon suma xarit daan invité Baye ci barnaamij Nour ala Nour ci télévision bu Égypte waxtu ma fa demee rek mu ne ma ana doomam bu ñu wax Mariam euh, ndax xam ne bu ñëwaan fii moo Cheikh Ibrahima Niass dañ daan ñëw fekk ko Cheikh mu ngi tëdd ci lal bi Mariam di ko jàng alquraanu karim euh, ma ne ko Mariam boobu fi mu nekk ni moom la ñuy dàkkantele xaadimatul quran ndax euh, li muy liggéeyal alquraanul karim tabax na ay daara yu bëri euh, jàngal na ay kàng yu bari yoo xam ne ñu ngi génn di jàngale alquraanul karim te moom moo leen jàngal alquraanul karim biñ ci tegee ñaari at rek Seyda Mariam ñëw fa biñ fa ñëwee mën ne ko Seyda Mariam mi ngi doon laaj mi ngi fi fi nekk nii Égypte mu ne ma jox ma mu ne ma ndax yaa ngi toog ak moom ma ne ko waa maa ngi toog moom mu ne ma jox ma ma wax ak moom ma jox ko Seydina Mariam mu wax ak moom mu ne ko daal mënoo ñàkk ñëw tey suma kër loo xat xat xat tey da nga ñëw suma kër ñaanal ma suma kër gi ak sumay doom dëgg-dëgg ñu ngi tàggoog euh, jëmu joo xam ne lépp alquran la woon alquran la woon bu doon dox ci kaw suuf waxam alquran la woon bu tëddee sax nga foog ne mi ngi nelaw waaye xol baa ngi dund ak alquranul karim kon daal lépp lu mu liggéeyal alquranul karim yàlla na ko yàlla fay fay ko ko ci ay njabootam ndax euh, dëgg-dëgg alquran la woon joo xam ne day dox ci kaw suuf mhm. xaadimatul quran mhm. eh, te lépp rek mi ngi ko jëlee ci waajuram Mawlana Cheikh Ibrahima Niass mhm. te nit ku nekk rek li nga nàmp ngay gàll moom loolu la nàmp ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ba nga xam ne waxtu nekk bay na ci waar wu yaatoo yaatoo yaatu foo dem da nga gis jeexitam ci alquranu karim daan jël ay doomi julit leen tàggat ci alquranu karim di leen yóbbu ci ay musaabaqaat yu bare bëree bëri ci réew addina bi man fekk na ma ay yoon ay xale ñu def foofu ay musaabaqa di jël ay neexal yoo xam ne neexal yu am solo la te lépp rek ngir pas-pas boo xam ne amoon na ko wane ne moom dafa war a liggéeyal waajuram te fi mu ko war a liggéeyale moo ci alquraanu karim te na ci ba ràññee ràññeeku ci ci li nga ne moo di alquraanu karim yàlla nañ ko yàlla fayal alquraan bi nga xam ne yonent bi nga xam ne dafay nekk shafia dafay nekk rambu ñeel képp koo xam ne yaa koy jàng yàlla alquran nekk loo xam ne moo koy ràmm bés ci lu amul ci sëkk sàkk incha allah yàlla ñu ko yàlla fayal asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Oustaz euh,